Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf anniversaire Thiaroye 44 bu ñuy waajal di bér gi am na liy bees ci programme bi réew mi quotidien xëy tey di ñu yëgal ni njiitu réew mu France mi nga xamante ne boole woon nañ ko ci gan yi du ci teew yéenekaay bi di xam ne ni kon Emmanuel Macron ci boppam faux bond la war a def président Bassirou jommay fay ndax ki nga xamante ne moom mooy jëruñam ju mu dénk wàllu biti réew te mu door ay tukki ci dendub Afrique moo ñoo ko war a teewal ci bi leen ndaje yéene kaay groupe Rewmi Network bi di wax ci beneen fànn ni kon élection législative anticipée yi léegi leer na ndax conseil constitutionnel daa dëggal ndam li nga xamante ne Pastef am na ko te commission nationale recensement des votes fësaloon ko bu yàggul dara noonee la ko Vox Populi di yëgle ndax conseil constitutionnel daa dinay fësal résultat yu mujj te leer nga xamante ne kon moo tukkee ci mbañ gàcce ci élection jamono ji gannaaw nag lam-laamee amatu ca Sud Quotidien gis ni lu des mooy daa di installé fukk ak juróomeelu législature bi jamono ji nag yéenekaay bi di ñu xamal ni assemblée nationale ma ngay déglu rek kii di njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay moom Bassirou Diomaye fay ci course bu métti la nekk jamono ji ndax enquête nee na gannaaw lu ñu gis ni jàmp na lool mi votu budget bi njiitu réew mi xamle na ni kon na ni ab décret dina ko xaatim nu mu gën a gaawee ngir ñu daal di mën a amal première session bu assemblée nationale bi ci boppam fan cundung la ñu am ngir daal di adopté boobule loi de finance lii moo tax la tribune gis ni vote budget bi daal mode fast track lañu koy defee atum ren ji ndax njiit réew mi Bassirou Diomaye Faye ma nga yëgle ni kon décret bi tax ñu mën a ubbi session bu njëkk bi dina ko xaatim ci waxtu yi ñu dëgmal kilifa yi université Assane Seck bu Ziguinchor waxtaan ba xaatim ay dogal Le Soleil yéenekaay xam na ni li ci gën a fës bokk na ci campus pédagogique ak social bi nga xamante ne dañu koy tëj ràpp et amicale yi nga xamante ne dafa njaboote étudiant foofu ñu daal di koy tas yéene kaay aan bi di yëgle ni dogal yi nag dara waralu ko lu dul fitna ak jàmmarlo yu métti yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci daara ju kawe jooje démb nag ci ndajeeb conseil des ministres njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye sàkku na ñu jël ay dogal daar daar bu ko defee njàng mi daal di wéy ci université bu Sikicoor ci université bu Sikicoor goge foo gis ni daal dogal yi nga xamante ne conseil académique bi jël na ko dina métti lool ci étudiants yi nekk foofee coordination ak amicale yi nga xamante ne dana koo tas ba ci sax campus social bi nga xamante ne tëj nañ ko étudiants yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fa logé fii ak ëllëg ajuma ji war nañoo fexe ba jébbal seeni caabi muy dogal yi nga xamante ne les échos dafa gis ni conseil académique bi daal dafa noppi ngir defante te boo moytul sax second semestre bi dañu koy invalider gannaaw coow li naan cobbay ci njàng mu kawe mi le quotidien ne kaay di yëgle ni Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko dañoo jóg fas yéene fay gi waxtaan ak syndicaliste yi waaye tamit bépp acteur bi nga xamante ne day dugal loxoom ci wàllu njàng mu kawe mi état mi fas yéene dugal loxoom ci secteur bancaire bi am na nag li nga xamante ne war nañ ko mën a lëmbaj ndax Walf Quotidien mu ngay mel ni kuy artu ci dogal bi nga xamante ne nguur gi ma ngi koy yëgle ngir jënd li nga xamante ne moom mooy SGS yéenekaay bi dénk ci kàddu Abdoul mbay di banquier bokk tamit ci kujje gi ne loole kon boo moytul ab catastrophe dëgg lay yóbbee Sénégal beneen économiste di wuyoo ci turu Moustapha Diakhaté solution bi jamono ji mooy fexe ba boole lépp luy banque publique ci Sénégal li ñu boole ci ay suuf jébal ko ñi bokkoon ci nguur gi wees yor-yor bi jàppee ko ab musiba muy nettali ni lu ëpp juróomi téeméeri junni mètre carré la ñu daal di jébbal Farba Ngom ak Ismaïla Ngom ca dagga xolpa ak fi nga xamante ne moom mooy Bambilor te lépp ci benn fan lañ ko def ci atum 2023 bi wees l'évidence tey ab enquête la xëyee ci ki nga xamante ne moom mooy Amadou Sall yéenekaay bi di xam ne ni kon moom doomu njiitu réew ma woon Macky Sall li mu takk kon ci ay mbir moo raw sax kii di mu Wade li waral nag bi la jàngat naataango yi di xam ne ni kon bokk na ci ay milliardam ay business am naka noone li muy lëkkaloo ak woykat bu mag ci senegal ay mbër kilifa diine njagamaar yi koy wër ba ci sax dem ak dikk yi nga xamante ne mu ngi koy def diggante Arabie Saoudite ak bàyyi Samuel Sarr mi nekk ci diggante Gardawi ak tribunal source a ma ngay xam ne ni kon moom jëwrin jawoon jamono ji mer ba futt la def gannaaw ñaareelu retour de parquet bi nga xamante ne bu ñaareelu cabinet ci ndakaaru ay avocat yu koy layal nag jamono ji seen yaakaar mooy Samuel Sarr ci boppam mun a am liberté sous contrôle mi am liberté totale l'observateur xëy fësal ñu nataalom kii nga xamante ne kon ancien fugitif la woon muy dikkaat ci li nga xamante ne moom lañ ko tegoon daan fukki atu kaso atum 2015 ngir complicité d'enrichissement illicite bi nga xamante ne mujj yi dañu ko doon sax laam-laamee ku bëgg a xam anakan mooy Sakori Ka yëral yéenekaay bi di source a ndax rakku jëwriñ jëwoon di Doudou nga xamante ne dañu ko cité ci mbiram Jérôme Bandiaki lu jëm ci jaar-jaaram ba ci sax ay waajuram ca la ñuy yënguy tamit mu ngi ci biir yéenekaay bi ci biir réew mi sport ndam li nga xamante ne Liverpool am na ko niki démb ci wàllu Ligue des champions ci digganteem ak Real de Madrid moom la ñuy nettali ak jafe-jafe bi nga xamante ne Kylian Mbappé ki ñoñoom am